les professionnels si vous voulez le professionnalisme le confort la qualité et la sécurité venez voir notre agence immobilière Prévision Immo Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de Habib Traoré l'homme fort l'agence Prévision Immo est focalisée sur deux domaines à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière pour la transaction immobilière il y a la location la vente et l'achat concernant la promotion immobilière l'entreprise sera le maître d'ouvrage c'est-à-dire le réalisateur du projet nous 33 927 43 07 wala nga 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix. mangi nuyu le DG de l'AIBD monsieur Abdoulaye Dièye Abdoulaye dalal ak jàmm asalaamualeykum sama mbokk jigéen nuyoo nag du farata fay nuyoo mooy farata asalaamualeykum sama mbokk jigéen maa ngi jiital ci nuyoo bi sama yaay soxna Adja Diarra Bousso Gningue Fogu ko fi won fooguma ko fi won ndax dañu ma won damay garder gi xaar sama goro Adja ndey ken ci di nuyu tonton sama ndijay la sama permanence la sama xarit la dafa am bés mu ni ma Mame Mbaye ma ne ko ah mu ni ma Mame Modou mooy sa jëkkër ma ne ko waaw mu ni ma uuf naa la sa ngénte uuf naa ko moom ci ngénte kon kooku sama nijaay di nuyu le président Moussa Sarr président du mouvement ETIR di nuyu sama xarit yi teew fii di ci le conseiller spécial du président Macky Sall li tax de damay nuyu sama xarit yi ko c'est parce que Lamine on a cheminé ensemble xeexandoon nañu Mamadou Diaw xeexandoon nañu lycée Malik Sy ci foyer bi jërëjëf di nuyu le président le membre fondateur de la Thiès jean Ndiaga Wade ak Ndiaye di le président du mouvement de la fédération des enseignants éducateurs républicains sama xarit monsieur Mamadou Thiel di la délégation du DG Abdoulaye Dieye di euh, le DC Ahmed Mbaye et le coordonnateur Thié yassine Diagne monsieur Lamine Sène jërëjëf yow dama naan la rek jërëjëf du ma la nuyu ndax yaa tànt tànt bi yaa teg chaise yi yaa installé jigéen ñi doog a dem dem ànd ak délégation bi ñëw jërëjëf. maa ngi nuyu sama Andu démb ñooñu bi ñuy ànd lu tuuti lañu ba tey jii lu ma nekk ñoo ma dëgëral bu loolu ku ma dëgg. xamal ne dama fàtte wante Fat Ndiaye chimère yow man bëgg loolu rek laa la ci tegal yow maa la bëgg grandstanding yi nga àndal di groupe supp nabi Lamine Sène maa ngi wax jërëjëf madame Sène ak sa délégation kontaan naa DG monsieur le DG ma ànd ak ñii ñu ngi nii ñooy président groupement yi nii la ñu woon toog sa bureau ñu nekk ñu am jom ñu nekk ñu am fulla ñu nekk ñu am fayda ñu nekk ñu gëm li ñuy def taa Bintu Dieye Ndeela Seen Kaja Sow Jeynaba An Binaa Njaay lay moom ñoo bokk si ba léegi boo xoolee sa posteel femme bi def nii ñaari loxo yi la Umu khairi Jaañ Mariatu yad Fatim An di nuyu ñëpp maam Seynabou sama ko bop fatew mala Muni ngi lay nuyu ak tonto Lamine Jaañ mom dañu wax mu ne ma mam dew ma yow rek lay ci ak tam lay tout jere ngeen jëf suma topé de ndax kanam bu xam naa lu ñu jëflante Modou Wathie Modou Wathie si kanam bu fi toog xam naa man ak yow lu ñu jëflante mais dama dul pare su ma ko toppee du pare kon maa koy yemale fii waaye Modou Mbaye gërëm naa ci sama xol laa koy wax ni tey nag bés la tey bés la daje nañu daje bu ne toog nañ toog bu ne waxtaanee nañu bu ne waaye tey ñaari mbir moo fi xew am na loo xam ne nag dama leen koy seedeel Cheikh Mouhamadou Bamba Diop kaay munoo ñàkk fii ndax ñaari taxawaay nga fi am danga may ñëwal ndax sama càmmiñ nga neen bi ci des mooy da nga ñëwal Khadija Bousso muy sama xarit di sama àndandoo di ku à? vâng. vâng ma bëgg ñu bokk Amadou Ba mu waroon ñëw fii tey en tant que invité d'honneur Bamba damay jël nuyoo jigéenu APR yi ñëw léegi wàcc si muy Astou Ndoye muy Jéegay muy Maguette Kobar muy Mampaye Mbaye muy ñoom Binta Fall ñoom ñëpp mënuma leen lim mais gis naa seen taxawaay rafet na Aïda Fall ñoom ñëpp kontaan naa ci ñëw gi waaye DG da nga gàddu yet ñaari yoon jëmale dèjà teral pas, paas paas dèjà dèjà teral nañ dañu dëgg élection locale ñu ànd ak moom dèjà yëkkati teral nga bu def ma jël tête de liste proportionnelle teg ma fa bàyyiwuma yéen ñëpp musuma def di man lu ma mën lu ma mënul lu ma am seddoog yéen moo ma dooleel moom moo ma dooleel mu yëkkati cinquante euh, formation teg ko ci loxo aw ba ni na dugg jàmm gën jigéen ñi dem def ci seen formation mu ñëw remettre leen seen seen diplôme ñooñu di ci liggéey ba tey kon déjà jërëjëf Abdourahmane Wat jërëjëf nuy naa la ci turu projet ak Farba seen coordonnateur. DG yamuloo ci loolu foo toll bu tabaski jotee yaa ci gën bu korite jotee yaa ci gën bu màggal jotee yaa ci gën ouverture sax jotee yaa ci gën nag booleeg nag. li ma koy teg bu feebar ma ñëw ne ko DG diw feebar mu def lu mën ak lu mu mënul ko manqué dépense ma ñëw ne ko DG diw manqué na dépense moom xam na ni heure bu ma jàkkaarloo moom waxuma sama soxla musuma wax sama soxla su ma jàkkaarloo moom rek soxla jigéen ñii toog jéem a porter seen seen doléance c'est parce que da ngeen a gore ngeen ni Mame Mbaye amul poste xam ngeen ni Mame amul juróomi dërëm dañuy suturlu rek waaye da koo gëm ñu ànd yéen ma dooleel kon yéen jërëjëf déjà boo jàppee ñii jàpp ñu gore ñu ngi yëg di ma bëgg a bàyyi Lamine ñi day bokk ci ñi ma naan toogal bu bàyyi chaque jour su ma nee damay bàyyi ndax lii mënatuma ko mu ni ma bul bàyyi bu ko dee si ma da ngaa fàtte jigéen ñi ne ko a ah, wax nga dëgg mu ma kon jàppal te dina baax te ñu am yàqin dina baax ndax am na déjà parrainage bi ni ngeen ci taxawee rafet na kontaan nañ ñun nag dañu am suñu candidat pour ñu politique tuuti ñu am suñu candidat muy le président Amadou Ba kan moo ñu ko tànnal le président Macky Sall man foogoon naa ni bis bu Macky Sall nee du ma bokk damay ranger samay bagage dem toog ndax Macky kat jërëjëf bu ñu yéegee ci péage bi jëm Dakar jugee Thiès ba Dakar nañ ko sante Macky man la ci fi ma ne mun naa waxal Macky Sall sama yaay mi nee toog am entrée en lah ndar la defi jee sixième ngeen ma laaj lu tax du gudd tànk de c'est parce que sixième amul woon ini dañu wax wax bi mu leer ñu wax kan mooy président Macky Sall dem Ahmed Sall du parce que sixième amul woon Thiès boo amee entrant sixième ndar ngay jàngi jee tey ñu dem ba président Macky Sall tax na di nga def fii ci ba CM2 gestu def seen jàmm gën mbaa beneen CM bi dend ak primaire bi quatre sixième ba troisième nga dem Amary Ndack Seck fii boo jubalee def fa seconde ba terminal nga pare ji gitaar dem université te doo génn Thiès. jërëjëf ma ñëwaat ma ñëwaat ci président Macky Sall. trois FPT bii ñu teg yéen ñëpp ku ci nekk ma ne la jëlal sa kayit yóbbul emploi bindul ñu may la formation nañ yaakaar ne formation bi jigéen ñi jàngul rek la lii dëkk xale yu ndaw yii am BFEM ñi am bac bëgg nañ formation professionnelle may nañ leen ñu mën a dem jël ci dem ñu inscrire leen jàngi kon président jaaraama jaraboot bu boolee ñu nag ak Amadou Ba ñu am xam bu yaru bu dal bu teey bu bëriwul problème jërëjëf li tax mu neex a àndal te euh, am na benn maire buy wax rek

ba tey jii mu mën a taxaw nekk suñu candidat ñun soxlawuñu xeex kat soxlawuñu marche kat soxlawuñu pétition kat ñun ñu ngi soxla mooy trouver solution. Amadou Ba ba may dugg APR ba tey maa moom ñooy ànd ñi ko jigee dëgg xam na nuñ koy woowee solution ñun solution boobu lañ soxla ci suñu Sénégal fii mu toll jërë ngeen. asalaamaaleykum waa jàmm gën asalaamaaleykum. ci weeru Mame Mbaye jàpp naa ni nuyoo bi ma koy jël teg ko si derrière les femmes njëriñ les femmes braves de notre sœur Mame ngi leen di nuyu di leen yi dafa gëm si fidélité bi ngeen xamante ni am ngeen ko ak lool ànd ak moom du tey man xam naa ci dara. ndax ànd nañ kanam yi nekk fii yëpp xàmmee naa leen ndax ànd nañ dans des moments très difficiles ngeen takku ànd ak moom liggéey donc tey nuyoo bi ak sargal bi euh, l'association des femmes njëriñ ànd ak Mame Lay Gueye laa koy jox bu nga ni moo ñëw teew bés bi lii day wane rek bés bi moom yàlla barkeel na ko. ndax doom buy def dara way juróom toog jàpp naa ni tey bu ñu jógee fii financement bi day gën a yokk ndax bés bu barke la nuyu responsable yi fi nekk yëpp autorité yi fi nekk à vos rangs grades et damay juum mais nuyu naa di kontaan bu baax vraiment di wax ni rek bés bii bésu Mame Mbaye la man du sama bis damaa ñëw rek ànd ak moom ndax ku ko xam xam taxawaayam xam jàmbaarteem mu nekk une femme très engagée une femme fidèle mais également une femme brave ndax dëkk bi boo fi nekkee da ngay am courage wax sa xalaat da ngay am courage wax fi nga bokk da ngay am courage wax li nga xamante ni mooy jëmal sa wax kanam Mame Mbaye loolu la ñu àndee démb ak bërki démb ànd bi nag yàgg lool je pense que ni wax na fi ñu commencé ba léegi. man su may ànd ak nit damay ànd ak ndax amal nga njëriñ sa askan. wax na ko saa bu ñu gisantee soxla askan askanam la may wax soxla jigéen ñi soxla jeunesse bi également soxla commune communauté bi nga xamante ni moo nekk si jàmm gën yëpp. donc ma may ñu ngi lay encore di wax ni fi nga teg sa tànk foofu la jàppaleen jigéen ñi jàppaleen jeunesse bi jàppaleen sa waa mais éventuellement jàppale Thiès parce que ñëpp xam na ni nag li nga liggéey si biir APR liggéey ko ci Benno Bokk Yaakaar sa taxawaay ci Thiès ba sa romb Thiès ñëpp xam na ni amal nga njëriñ Benno Bokk Yaakaar amal nga njëriñ APR parce que liggéey nga fa loo xamante ni tey man fu ma toog sur le plan national dañ lay tudd di wax sa jàmbaarte te loolu bu amee ñun nga sagal waa Thiès nga sant bu baax mon frère Lamine Sène

boo fi ñu bëgg a yegg ñu yegg fa ndax booloo mooy doole donc nag parce que jàmm gën kat enjeu la jàmm gën dañ fi war am euh, liggéey bu am solo bu ñu fa def Lamine wax na ko nee na waa jàmm gën ngalawaay fexe ba élection yi ñu gañe ah loolu yi ñu jëm dafa am liggéey bu am solo a loolu nag jàpp naa képp ku toog fii ni benn maam lay jàppal ni nous nga jàppal ni ci a war a dem si biir kër yi sensibiliser wax ni a ba élection yi élection je pense que raison yi bari na président Macky mi nga xamante ni ñun moo ñu doon ñu doon ñun am conviction jàppale askan bi jël li ñu am di ko def ci waa Thiès jàpp naa ni moom dañ war a honoré honoré ko mooy mu génn bi ka génne na ko ba pare ndax renoncé mooy ñu fexe ba Amadou Ba falu nekk président de la République ndax teg si loxo ki nga xamante ni moom la teetee wóolu ko. ñëpp bëgg ko ndax ay compétence am ñëpp bëgg ko ndax xarañteem ñëpp bëgg ko ndax tëgg bi nga xamante ni na ko président Macky Sall tëgg le plan Sénégal émergent donc fierté la honneur la si président Macky Sall mu jël léegi nguur gi teg ko si loxo Amadou Ba te loolu nag waa jàmm gën kenn lu waroon lañ ci taf ngeen gannaaw nañ ci ba ñu gagné centre bi nga 16 la en passant ñëw ba gën nuyu. honorable député Abdou Mbow di frère, xarit di frères frère di àndandoo di liggéey bokk Benno Bokk Yaakaar un c'est l'heure des grands ensembles Nous, àndandoo nekk benn xam ni benn objectif c'est de gagner les élections de 2024 parce que c'est la synergie des forces qu'on va arriver à réussir ce challenge qui est rien d'autre de gagner massivement au premier tour sur euh, ces élections euh, je dirais même

également di sant la jeunesse jeune bi jël fi parole jàpp naa ne tey euh, euh, ndaw ñi ñu dara bàyyi xel lañu ndaw ñi ñu dara tox seen gëdd lañu ndax avenir du Sénégal ndaw ñi ñoo ko yor muy ndaw ñu jigéen ñi ak ndaw yu góor ñi ñun nag li ñu mën ci ndaw yi man ak maam ñu ngi bu baax a baax parce si di liggéey ñi nag si jeunesse bi la ñuy dem jeunesse bi ku leen xam-xam ne lu ñuy wut emploi entrepreneuriat et financement des projets donc rassurez-vous te na ngeen taxaw xam ni ñun suñu yéene mooy liggéey Sénégal liggéey Thiès loolu li ñu koy mën a may mooy balaa nga daan naam ne dañoo jëm si élection donc jël leen seen i dem voté la coalition benn bokk yaakaar pour jox ndam ma may ñii nga xam mooy suñu sœur ndax Amadou Ba daal dafa yaakaar ci moom ni ma Amadou Ba jëlee eh, teg na si wetam ñu ne Amadou Ba ne am si man yaakaar moom it noonu la ko Amadou Ba jëlee teg ko si wetam yaakaar bi dina gisanteeg Amadou Ba foo xamante ni man du ma gisanteeg moom bu ngeen ko jàppalee ëllëg dina am ay ndombay tànk yu kawee kawe am ay responsabilité yu kawee kawe te su boobaa waa jàmm ngeen ñëw si seen bopp ñu leen di sant wax di leen gërëm di leen wax jërëjëf à la prochaine merci